bi ci des mooy politique ay pexe la Ablaye Wade daf noo jàngal politique danoo am ak moom quarante vingt cinq ans ay pexe la pexe yooyu nag boo ko fi bàyyee di am leneen looy looy doxal am na loo xam ne dégg nga kon am na lu mën a jur loo xam ne dana am lu mu la yàqal wax nañ ko sàng ajagat mi Fall wax na ko sàng yóbbante galgal wu bul làmb Idrissa na ñu wax ak nit ñi bu bëggee am na loo xam ne bu ko bëggee na wax ak nit ñi ay responsable nga fi yoo xam ne bañ gëj a taxaw ak moom leen mu jege at te di ko liggéeyal di ko noyee ba kañ ba kañ bu ñu dikkee ñu këram dem na nga ñëw ñu ne la amul jot nga ñëw ñu dem na wala nekkul man de li ma dal ci sama diggante Idriss damaa ànd ak Ablaye Wade vingt cinq ans bu ma nekkoon kooku bunt bi foo Ablaye nekkee ak lu mu xat-xat dana ma recevoir benn cinq ans sama xol sedd ci waaye nag li ma Ablaye sa defal ci wàllu teraanga defal ma ko ci moyen Idri Ablaye Wade defal lu ma ko muy ñaari contexte yu taxaw ci sama wet te sénégalais dafa am loo xam ne daf ko bëgg lool dafa yëg boppam yëg boo xam ne gii boo ko fonkee rek dafay daal di gis boppam rek ne maa ci defe na mu ngi ci kon parce que am na ci loo xam ne bu ma ko toppee dafay yàgg te ñii ñibbi ci kaw gi ñii ñibbi ci si ñoom Moussa Ndoye ñooñu fañ dëkk na waaye ñoom xam nañ ma ci département bi lan laa fi liggéey 96 96 97 Touba Toul ji li muy jege fanaan naa fi ñaari guddi di liggéey département Thiès ba mu teg ko ci ba teg ko ci suñu teg ko ci suñuy loxo bi fi Idrissa sa ñëwee daf ma daan maa ngi raan dañ ma daan wax liggéey liggéey leen li ngeen kii li ngeen plan kii bi rek ñu liggéey frais yi rek li nga xam ne man luyee oto dox ko ñaari dox ko département bi neuf communautés rurales yëpp ñu def ko ba mu ba mu yem loolu ma sama kër a ngi fii waaye xam nga waatul gi ak sama kër jege na ko fanaan ñetti fan am na la fi mu nekk nag ku nekk na mën naa fëgg dënn waaye ba mu méttee am na ñu fëggoon dënn di liggéey ba jël département beeg lépp ñu teg ko ci loxol Idrissa Seck rek ñooñu ba léegi ñu ngi fi nag mën nañ ko teg ceeb na fexe ba di wax ak nit ñi nit nit rek lay doon il faut mu toog ñëw di wax ak nit ñi yaa nga ba jota yow mi ñu yebal ci yow moom waxal ak moom ne ko nit ñi bëgg nañ laa gis bëgg nañoo wax ak yow lu day nag bisub julli war ngaa mën a recevoir say militant say responsable ne leen jaa jaa boo leen cëlew dit baal leen maax baal naa leen maax xam naa ne lii ngeen wax wax ngeen dëgg am na am na wéré di am na mën naa nekk wéré di mën naa am na parce que sa nit boo ko xoolee xool ko xoolaat da nga xam am na lu ne ci moom wala lu nekkul ci moom waaye nag politique ay pexe la de ay pexe la ne leen ko ay pexe la ñu ñëpp noo ngi ci biir département bii nag su ñu sàgganee ba mu ba mu perte ba ñu perte ko rek musiba am bu ñu paxee ne yéen ñii ngeen xam ne ñu ngi am lu mu leen dégg comme ni ko yangoo ba jatara amee waxe yéen yéen a am soxla am ngeen soxla bu baax puisque bu dee moyens yi am na loo xam ne amuñu ko woon ci jamono Ablaye Wade amuñu ko woon waaye amoon na lu nit ñi lanu amee woon nit ñi mooy wax ak nit ñi di gis yëng nit ñi di wax ak nit ñi waaye ki nga xam ne boo ko bala koy gis da ngay sonn mooy dafay nekk nit koo xam ne nit nit rek la nit ñi nañ leen bàyyi xel nañu leen yëg doomu aadama yàlla sax dafa bëgg nga yëg ko di ko ñaan yëg ko mu di la may waaye bu fekkee yëgoo ko du dul romb ko bis bu ne ni ancien yi def fii am na ca ancien yoo xam ne bis bu ñu ñàkk 1000 francs téeméer dem téeméer dikk ci tax xam ngeen loolu metti waaye nag terewul ñu ngi koy def tax bëgg bari yéen ndaw ñii ngeen xam ne yéen a fi nekk bu ngeen ko defoon ni ko mag ñi doon defee ëllëg du ñu wax lii nu wax lii ñu nekk kon delloo si leen seen. yëngu leen ko nit ñi dañuy toog man sama bopp am na loo xam ne jomb na maa dem si nit ñi di leen wax wax man teel maa gis ma mën la gis di man mii maa ngi responsable est ce que dinaa ne di di si nit ñi bu bëggee pour wax ak moom loolu mooy wax bi jàkkaarloo démb la sax dara bëgg a sonal moom la nit ñi soxla na dem si nit ñi wax ak nit ñi. su demul wax ak nit ñi nit ñi duñ ñëw dox ak moom am na góor yoo xam ne nag kenn mënu leen a wax ba ñu dem fa ne waaye am na ñoo xam ne ah boo xam ne nag xaalis la fi indi woon nag xaalis da leen jàpp ñi xam ne ngóor leen fi indi woon ñu bokk ci bari ngóor dañu koy sàmm waaye ngóor bi yëpp indi ñu bëgg ñu bëgg kaa jàppale ñu bëgg mu mu falu nu am ci ndam day déplacé dem waa Kayar lii mooy dëgg na Idrissa ñëw animé base bi man na quatrième li nga wax naa ko dem na waaye am na ñu fa des sama doomu mag boo xamante ni moo toppati moom Serigne Sawaare ñu nga fa jokkoon ma ak bii nee na ma bàjjen damaa nekk Dakar day liggéey nag léegi waaye bu ñëwee nee na dina ma woo la ñu ca ko ca def ndax man naa ko ëpp ma doole quatrième ndax maa ko mag fuufu ndolle xëy na nag raison ya mu teg ba dem moo ko xam. waaye lu ñu ca man ko ca def parce que quatrième ñun dañ faa mos di gañe référendum bii lañ fa gañee ak ñaar juróom-ñaar fukki bat euh, ak naa ba juróom-ñaar fukki ci yi la xale ba koy yoroon affaire foofu moom la fa gañe waaye quatrième dañ faa mos a gañe deux bi ñu ko batee nii résultat yi ñu ko indi sa kanam lañ ko indee mel base bi ba base bi riir comme ça nit ñi bëgg nañ ko de xam nga li problème mel ji moo yàgg mel jee yàgg waaye nit ñi bëgg nañ ko kon maa ngi jégalu ci kàddu yi di wax ni dem boobu naa ko dem neexuma tey man am na lu mën a jël kër ja moom du ma ne lépp mënu koo jël nag ndax wala dëkk man dëkkatu ko fa waaye am na lu fa des ba léegi te la fa des dinañ ko jéem a wala risque ak ña nga xamante ne ci war dañ ko ca def ngeen baal ku mu ñëw xool doomu aadama yi wax ak doomu aadama yi lu mu war a rëq mu jubbanti ko su ko manee gars yi tontu ko ci ni man ni ma ko gisee xale bee bi muy xale bu ndaw sama kanam nga juddoo saw mi may ànd ak yaayam mu def ci lu ne nag kayaar sonn ci parti bi nag daj ne munu booba parti bi metti na munu ma saana dem day bàyyi këram ñëw jëndal nu ay jay yu mag ñu di ko toog booba kuy sa yaay nekkal lu kayaar maa ngi lay sant di gërëm di la nuyu ñaanal yàlla li ci suuf sa yaay sonn yàlla wàcc sa kaw ànd ak njiglaay nag fii ku fi ne rek sonn nga ci parti bi bëgg nga parti bi ñun ci suñu jëm bopp ñoo war a bàyyi làq suñu bopp nanu wane Idrissa Seck lu ci waaye am na ko génn nañu wane Idrissa Seck waaye bu réunion amee kii ñëw kii du ñëw ñuy wax ay naxa sa xandaan ñun ñu leen sonn nag mbir bi la Idrissa yow leer ko nekk mu teg la sa place fu waay nekk rek war nga faa doon Idrissa Seck segam parti bi li ñu wax mi ngi ci ñun fu ci waay ne rek war ngaa doon am Idrissa Seck kon tey département bi dañu war a déglu ñu wax seen ndax dëkkunu fi ñu profité ku ci nekk wax loo xam boo ko ëmbee yow mi dem ci Idrissa nga ne ko nii la ak nii la parce que ñun màggat na sama goro boobu toog ci sa wet maa moom ñoo nekkoon ci département bi njëkk bel Moussa Ndoye mais jabaram Seynabou Ndoye bi may maire département yi soxnaa moo topp ci man ko def laa ne fii man kenn du ma fi nettali leen ne wax dëgg yàlla su fekkee gaal la rek ñaari dugub lay dox te loolu daf ñu fi ittardeel de képp kuy xoole rek wala nga ñàkk fay dama affaire di wax ak yow ba la jël sa problème la sa problème la nit ki dama la gisee noonu la lay ëwale mënul laa jox looy dundal sa dipp sa dund mënul noo yor nit ki wax dëgg yàlla bëgg na doomam ko bëgg na doomam remplace ko ci ay la ko defal de fekkante ne loolu la Macky Sall ñoraan bokk di añ kër Idrissa Seck lan ma njëkk a may ci àddina ñaari téeméer la di ko dawal sama buntu kër lay toog man li wax nëbbu ma ko ragaluma ko kon defe naa xam naa leen bu wér waaye Idrissa Seck dina jóg nag segam segam téyewuñu ko jénguñu ko na jóg waxi ak nitam képp kuy wax na wax loolu. na nit ñu jóg jigéen ñi sonn nañu xale yi sonn nañu góor yi sonn nañu yow ci sa jëmmi bopp yow sa jëm bopp yow mi fi bàyyi daw nga ba dee daw nga ba dee maire yi ñoom lañu jàll ñi nan lu génneel millions yi ak yow ñu jox ko suñu jigéen ñi département bi nan ko jox jigéen ñi pour ñu paas jigéen ñi paas bu ñu waree liggéey ñu jóg liggéeyi loolu la ñu war a jàppale Idrissa Seck kenn mënut na politique sans daal li laa xamante ni ma leen di leen dinaa ko leen nuyoo sant beneen yoon